nekk euh, ñu war a gis beneen façon Sénégal donte benn bi la lu bëri ci ñun li ñu yaree mooy ñuy def jàmm mais jàmm dafa am lu ñu koy wutee ñëpp xam nañ ni mu di dëgg sëriñ Touba dëgg dëgg dëgg li muy bëgg-bëgg jàmm mosul bëgg kenn ku ko yab jullit du du du nangu ku ko yab muy chrétien ku mënti doon bëñ bii nekk sa gémmiñ bala muy sax dafay metti ba pare mu doog a neex lan moo tax tey ñu ñuy gëmloo jamonoy sengoor suñu maam yu bëri yàlla ñu jégal xawaare lañu ñu xamoon euh, def ay bolot def ay carte ci même instant bi tubaab bi nekkoon doon doon doon doon ruiner Sénégal dëgg la nag xeex ak toj ak yooyu santuñ ko kenn mais lenn rek la ñu bëgg bu fekkee nit nga bu fekkee góor yàlla dëgg nga tigi bul toog sa kër yore sa téléphone di na nga ñëw et puis jarul publier soxla wu ñu soxla wu nekk star benn star amuy Sénégal est-ce que comprendre so bugguñu kenn xam ñu bugguñu kenn photo ak ñun lenn rek la ñu bëgg mooy génn tenir drapeau national man mii di wax ak yéen nekkoon naa Bango mais lenn rek laa fa jàng mooy sens de l'honneur nit warul yor drapeau national nga ce qui veut dire que ne drapeau national la ñu tiré citoyen euh, moom la ñu tiré de ce fait instant bii nii dafa am liggéey boo xam ne war na am mais liggéey bi am artistes yi ñoo ko war a porter je me dis que tey bu fi mënti taxaw yéen ñi seetaan ñëpp ku ci jënd téléphone wala nga jënd ba képp ku fi takk jabar population bi ñooy seetaan ay téléphone cent franc di dugg internet pour que nga mën ko am ñu leen di wax bu fekkee ay góor yàlla dëgg ngeen bu fekkee ay soxna dëgg ngeen bu fekkee oto yi ngeen di dem di sàmbay mbayante ci politicien ba ñu may leen ko ñëw leen fii pour ñii ñii amuñu xaalis riche ñu duñu ay politicien c'est pas des milliardaires mais ñii ñoo ëpp milliard nit bu fekkee da ko bëgg da ngay ñëw pour taxaw ko wax dëgg leen rek laa ci sant yàlla leen ma gis télé ba ma sàmbay mbayaan ci kenn looloo tax tey peut-être su suñ joone yàlla tey loolu moom moo tax mais Sénégal daf ko jar loolu la ñu jàngal nañu bàyyi Sénégalu sengoor loolu amatul di toog kër ga naan ay jàmm jàmm danga koy liggéey jàmm danga koy liggéey jàmm jàmm déedéet yàlla du ñëw dimbali kenn yàlla du ñëw dimbali kenn toog na ñëpp ñëw kenn ñu gaañante euh, góor yi war a fétti ci kanam li may si appel bépp góor bu nekk ci kanam nekk ci ginnaaw ku gis benn yaay booy jigéen ñi ak xale yu ndaw yi protéger na ña ci nekk seq benn jigéen dimbali ko ku ci gis tey mu yor gànnaay da ko faal lii du loolu nañu ànd bu fekkee dañuy rey anyway loolu garaawul ñëpp xam nañ ni dee fii kenn ragalatu ko nañu dem bu fekkee dañuy dem pale ñu dem pale fu ñu dem tey ñu dem fa mais Macky Sall lenn na ko leer bu fekkee ñun ñoo la sànnil carte bu fekkee président Sénégal nga bëgg doon ñun bëggatuñu la bu fekkee am nga jom mën nga dem